11 juillet 2021, 10 ans déjà que de chemin parcouru par Digital Store, notre entreprise. Depuis le premier pas en juillet 2011 à nos jours, de l'avenue Bourguiba à la corniche ouest en face de l'océan Atlantique. Étape mémorable marquée par l'ouverture de notre filiale Premium en 2017, suivie en 2019 de la signature du contrat de représentation du Crosscall au Sénégal. en 6 de l'augmentation du capital de la société en 2020. Nous rendons grâce à Dieu et remercions nos fidèles partenaires, clients, fournisseurs, banques, mais surtout le capital humain. Ces femmes et ces hommes de cœur qui sont en train de graver en lettres d'or le parcours d'une jeune entreprise africaine. Je voudrais simplement aujourd'hui profiter de l'occasion qui m'est offerte de parler au nom de mon personnel, celui du Digital Store, une équipe de jeunes de jeunes compétents qui en veulent, qui ont réussi à se décomplexer et à prendre en charge leur avenir pour se projeter avec confiance dans cet avenir. Euh, nous savons que l'art de gouverner commence par l'art de savoir s'entourer et c'est pour cela que le choix des femmes et des hommes qui nous accompagnent dans ce destin commun et important. Je le disais, 10 ans, c'est un tournant décisif pour une jeune entreprise africaine. Digital Store fait partie des, des acteurs majeurs. Voilà, c'est une société quand même qui a un rayon euh, assez, large au niveau de l'électroménager, des téléphones, voilà, tout ce qui est audio, vidéo, Donc on sait aujourd'hui que c'est un acteur majeur et un de nos principaux partenaires aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. En tout cas, ça fait, plaisir de, de faire partie de cette histoire parce que 10 ans, 10 ans c'est quand, même, euh, une belle carrière. waaw ñu nekk ay clients yu woo xamante ni dañuy liggéey ak euh, digital store depuis des années depuis seen création ñu fidéliser wu ci ñoom ndax qualité bi ñuy def ak tamit euh, disponibilité bi ñu am ci wàll service après vente bi yooyu yëpp tax nañu fidéliser wu ci ñoom di defal tamit ay prix ak ay facilité de paiement yu baax loolu nag dafa tax bépp produit bu ñuy def ñoom moo xam li ko dalee ci électroménager yi ñun ak suñu personnel bi ñu yore yëpp lépp luñ ci soxla ci ñoom la ñuy ñëw ndax euh, qualité bi ñu woon ak disponibilité ak facilité de paiement yi ñuy defal dafa tax ñuy sawar di jënd ak ñoom bu loolu weesoo tamit dans le cadre des besoins de l'entreprise Kër Harim Confection lépp lu ñu soxla ci wàllu climatisation wàllu informatique moo xam consommable yi cartouche yi imprimante yi ak ordinateur yi lépp lu ñu ci soxla rek ñu leen sollicité ñu répondre rapidement. d' abord damay remercier waa di Sal Solar depuis moom ñoom ak Pamecas partenariat yàgg na boo xam ne depuis établissement Babacar gee la woon ba ñëw te si Digital Solar c' est la deuxièmement fois que ñu consigne un contrat de partenariat pour la livraison des spirits te satisfaction moom lañ ci am depuis le début mën naa ne c' est en 2019 que la collaboration avait débuté ñëw ba tey ci ñëw renouveler waat ko. day montrer que satisfaction totale bi nga xam ne PAMECAS am na ko ci waa di Salsor en matière de fourni fourniture des ak yeneen matériels yi nga xam ne day jóge ci wàllu informatique ndaxte ko xool ñun PAMECAS suñu département achat dañoo exigent si yenn point yi lu ci mel ni qualité te de livraison coût de matériel ak conditions yi te ñeenti points yooyu yëpp bu ñu ko dajalee di Salsor macha allah kon nag. Euh, satisfaire nañ si. donc euh, par rapport ak euh, collaboration collaboration bi ak digital ça se passe très bien depuis trois ans ñu ngi donc que ñu indi client que ñoom ñu indi client. je pense que le client y trouve son compte à chaque fois donc le but recherché parce que ni ko Fallou à trois parties entre digital store Kofina et les clients donc alhamdulilah rabbi alamin jusqu'à présent ça se passe très bien les clients y trouvent leur compte Kofina y trouve son Rijal aussi si il trouve son compte donc ñaan yàlla yeneen collaboration topp toppaat si par rapport ak yeneen euh, yeneen produits yeneen circuit donc euh, ça se passe très bien bi ma am mooy lancé bi ñu nekk sant yàlla di leen ci ñaanal mu gën a avancé parce que wax dëgg ne yàlla équipe bu jeune la ñu am équipe bu dynamique la ñu am donc euh, continuer leen ci lancé bi ngeen nekk ñu ngi gën a di bëgg ànd ak yéen ñun waa CCBM ci lépp li ngeen bëgg ci wàllum liggéey bi ci wàllum jaay ci wàllum service après-vente donc ñun dañuy kontaan. waaw euh, kontaan nañ ci seen qualité produit yi comme li ma doon wax sànq du benn domaine rek la ñu nekk partenaire nekk nañ partenaire ci euh, côté téléphone yeeg yooyu mais tamit personnel bi ci boppam am nañu convention ak digital store euh, nga xam ne personnel bi dañuy am ay facilités yoo xam ne dañuy mën a jël fii produit te loolu globalement on est très très très satisfait de sa partenariat. ma teew si amicale des jeunes di Portum de Dakar euh, teew yi si tur ki nga xamante ne mooy suñu président. xawaay bi ngeen am jëmale ko si bépp demande boo xamante ne adressé na leen ko euh, non seulement efficacité bi ngeen am si traitement bi mais également satisfaction bi nga xamante ne suñu membres yi ñi nga xamante ne ñu bëri fii lañ jëlee seen frigo fii lañ jëlee seen ordinateur fii lañ jëlee seen portable fii la ñuy jënee ay machine à café yooyu ñëpp ñu am si ay satisfaction waaw digital store nag man mën naa ci wax quelques mots parce que euh, ba may jëflante ak ñoom ba léegi gis naa ci sama bopp parce que lay proposer des équipements de qualité ba pare di la defal euh, tout ce conseil parce que ce n'est pas juste un point de commerce mais point de commerce et de conseil la quoi loolu laa ci gën a apprécié ils ont des ingénieurs ak des techniciens yoo xam ni ils sont capables bu nu amee questions euh, ci lépp luy ordinateurs portable Euh, ci lépp lu nga xam ne daal mooy jumtukaay yi utiliser suñu bureau ñu nu des conseils puis des réponses claires ci wàllu caractéristiques yeeg yooyu quoi. Euh, Digital Store euh, c'est vraiment une équipe très dynamique euh, qu'on retrouve en boutique et depuis leur début euh, je me rappelle en vers 2011 je n'arrête pas d'acheter chez eux parce que j'ai trouvé la qualité de service qui était là les équipements sont de qualité. et euh, également leur service après-vente parce que euh, on sait tous que l'électroménager, euh, c'est vraiment difficile quand on n'a pas vraiment les mains très techniques. Et donc, euh, de mon côté, j'ai été vraiment satisfaite parce qu'à chaque fois que j'ai eu un souci, j'ai fait appel à eux, ils ont toujours été là, présents, et pour m'aider vraiment, que ce soit le montage, que ce soit euh, la partie ma euh, maintenance euh, des, des, des matériaux. Franchement, ils ont été top sur cette partie-là. la plupart sama téléphone ak yeneen jumtukaay yëpp fii laa koy fii laa koy jëndee donc digital nekk boutique boo xam ne euh, li ma gën a marqué moom si ñoom mooy seen diversité de leurs produits et surtout authenticité bi c'est surtout ça bëri na ay beneen boutiques yu def les mêmes produits mais fii moom li si wóor mooy c'est l'authenticité et la garantie service après-vente bi et puis euh, accueil bi et tout. Tout à fait, je suis satisfait. Si je n'étais pas satisfait, je n'allais pas revenir. donc, euh, ça fait au moins 5 euh, la maison. Et tout, ce tout le matériel que j'ai acheté donne entièrement satisfaction. Donc 10 ans d'existence de, de cette entreprise, ça se fait dans la fierté et dans le sentiment d'avoir vu une évolution notoire, machallah, dans les activités de l'entreprise et une bonne visibilité au niveau du Sénégal et au niveau des médias, et au niveau des réseaux sociaux aussi. Très je n'imagine pas acheter ailleurs que chez Digital Store. depuis que ça a commencé, même quand je vais dans un autre magasin par hasard, je reviens toujours à Digital Store pour passer mes commandes. Je n'achète jamais ailleurs parce que euh, au niveau relations clients, il n'y a pas mieux. Au niveau tarif, il n'y a pas mieux. Et au niveau euh, même relations humaines, il n'y suivent les clients, ils les accompagnent et proposent les nouveautés. li gën a am njariñ actuellement ci monde technologie bi wala ci monde euh, business sax laa mooy sérieux ak crédibilité mm. te ku ne xam na ne Digital Store moom kenn du naatable ak crédibilité am Euh, tey jii foo ko wax amul lenn lu ci niy teg lu xam ne rek ñooñu ay ay ay liggéeykat lañ boo ñëwee fii di nga ko xam ndax équipe bi da xam ne ay nit ñu sérieux ñoo fi nekk ay nit ñu ñu am ambition ñoo fi ñoo ñoo fi nekk ay nit ñoo xam tamit li ñuy def xam nañ ko ce qui est vraiment important li ma wax chaque euh, liggéey moom euh, nekk ci baax na lool waaye li ngay liggéey nga xam ko maîtriser ko lu am solo la. Digital Store restez digital.